أين رحمتي الحمد لله جزيل نعمتي لا خروج ما هي أين رحمتي السلام الله تعالى وبركاته نعم بن سنتي di ci yonati montaka mu yag Euh, sëñ Moustapha ñi ngi lay nuyu bu baax fi nuyu sama mbokk yi ma fekk ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax euh, waa liggéey bi de moom tubarkàlla macha allah yàgg nañ ci ndax xam naa ne jamonoy sëñ Saliou ba léegi ñu ngi ci nab na bi di ci yëngu na boo ko xoolee daanaka dina war a mat euh, ay fukkaat ak ñaar yooyu li féete nag ci wàllu diaspora bi sëriñ euh, Seex Aliou mi xam ne sama doom la sama lépp yàlla dogal mu dugal ma ci liggéey bi na ma lépp lu féete ci diaspora bi daal yow lañ ko jox nga di ci yor liggéey boobu booba léegi nag euh, ñu ngi ci nekk di ci liggéey ba yàlla dogal tey euh, sëriñ Mountakha nekk fi toog fii ñu dem fa keroo ànd ak waa daayira bi ma àndaloon waa Italie bi euh, ci njiitu soxna Soda Samb ak soxna Ami Samb parce que ñoom ñoo jëwriñ yi ma bokk ak ñoom liggéeyu daayira bi bañ demee joxe suñu addee ndax comme addee ji niñ ko daan joxe lenn lu ne dañ koy wax na ko lii foofu fa la jëm lenn dañ koy leeral sëñ bi na ko nangam ji yow lañ ko jox wala nangam ji ki fi nekk sëriñ Touba li nangam ji daayira Porokhane bi la jëm ci xale yi ba ban egsi ji maaw raxmati bi man sax bàyyi woon naa ko ak xaalis ba waaye sëñ bi daan ne naa wéyal liggéey bi na ma ko doon liggéeyee naa ko wéyal continuer ko na ma daan def xaalis bi yëkkatiwaat xaalis bi jox ma ko naa ko def na ma ko daan def ci laa xamee après ñu wax ma ne ma sëñ Moustapha moo yore liggéey bi ci lañ woo sax sëñ Moustapha fekk mu yàlla dogal mu dem Dakar na kon jour boobu dañuy dem pour wax ko ñun nag man ni ma naan masa liggéey ndaka jekk mooy xaalis moom mosuma ko laal ak dëkk bu mu mën di doon rek boo ma joxee xaalis bi xaalis bi duma ko laal dama naan la waxal kenn mu dem versé ko ci compte bi man compte bi rek laa leen di jox numéro compte bi buñ ko versé reçu bi lañ may jox ba xaalis bi nga xam ne moom lañ mujj a versé xam ne keroog ci loxo sëñ bi laa ko laa ko laa ko teg mu toll woon ci deux millions cinq cent dañ ko versé ci compte bi daan may jox reçu bi reçu bi nag moom mi xam ne moom lañ fi nekkal moo fi nekk yor maa war xam ne moom laa koy teg ci loxoom dama koy photocopier jël photocopier denc jox ko moom original bi waaw toujours noonu lay liggéeyee ci lu mën ni doon ma leen di xamal rek ne leen liggéeyu Serigne Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ca ak ku fi man di nekk rek ñun dañuy continuer suñu liggéey di ci liggéeyal Serigne Touba di ci dem na bi moo xam dëkk bu man di doon rek fës nañ yeneen daal lama wax sëñ bi rek dinaa takkaat sama laxasaay nekk ci ci ci wàll bu man di doon rek man dinaa ci jàpp incha allah ci kàttanu yàlla soxna yi xam ne nag ñoom laay bokkal liggéey bi ñu soxna jaara ñu bari ñëwuñu waaye mën na na ñëpp ñëw nañ ndax lu ci mën di doon dinaa leen ko leeral wax leen ne lii fa lañ toll lii lañ war a def ndox mi nag moom gis naa ne moom képp ku ci def dara sa dara na la wóor ne defaloo ko sëñ Touba sa bopp nga ko defal ndax Touba gii xam ne fi lañ dëkk ñu juddoo fi yaroo fi màgg fi lu fi waay def rek ñun ñi la ko defal kon ñun ñoo ci war a jiitu ca ndox moom ñun mënuñu ko manqué surtout ay soxna ñi fi nekk dëkk fi ndax ñun lépp ci ndox lañ koy def ci li ñuy toggee ci li ñuy fóote ci li ñuy sangu ci li defee lépp ci li ñuy naan kon lu koy war a mën a sellal defar ko ba mu baax ñun ñoo ci war a jiitu moo tax kenn ku ne rek war ngaa mën a jaayante liggéey ci Serigne tubaa liggéeyal sa bopp def ko ca yàlla tax ak Serigne tubaa loolu daal lay soññ sama mbokk soxna yi soxna jaare yi di ci soññ sama bopp jiital ko ci. di ñaanal sëñ Moustapha mi xam ne moom lañ ko teg liggéey bi mu woyof tooy ndax liggéey bi yomb na yombut kon nag yàlla na woyof tooy ci moom liggéey bi defe naa am na lu ma ci xam ndax yàgg naa ci. kon nag ñu ngi lay ñaanal daal yàlla uh, woyefal la yan bi tooy ba ni nga ko bëgg a liggéeyal sëñ Muntaxa bu sooba yàlla mu am ci nga am ci lu kawe sa njort daal di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi ci wér ba lii mu naal barki démb di université bi yàlla na ko yàlla dimbali mu egg ak jàmm ba intégré ko ba ñun ñëpp ñu fekk ko ci barke sëriñ Touba. ñu ngi nuyu it sëriñ Muntaxa yàlla yàlla yokk. aw fanam ak kàttanam ak wér yaram yàlla na yàlla def lépp lu mu naal li mu fi fekk mu yeggale ko naale boppam it mu yegg ko ànd ko njabootu Sëñ Tuubaa yëpp ak taalibe murid yëpp ak jullit yëpp ñu ngi nuyu nag kilifa yu tedd yi teew fii mu tàmbalee ko soxna Astu na mu sëñ Murtala nuyu it sëñ Abdou Xaadir Mbàkke bi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ak mbokk taalibe yi fi teew yëpp yi jóge ci daayira yi ak fi teew rek nuyu nañ la ñu ngi nuyu it soxna yi nga xam ne ñoo ànd ak soxna Astu Gaawaan gunge ko soxna jeer Ceerno gunge ko kàddu yu rafet lañ fi dégg bi ñu ñu fi jëlagun kàddu avant man muy lu rafet bi ñëpp rek di ay xam ne liggéey Sëñ Tuubaa bi ñu nekk soññee ci ay tamit liggéey ci nga xam ne mooy suñu njëriñ tey ak ëllëg te ay ñi fi nekk ñëpp di ay jàmbaar tàmbalee ci suñu kilifa gi soxna Astou Thierno ba nga xam ne mooy yor fédération daayira Maam Jaara yi nekk ci diaspora bi te li mu ko waxee depuis lu mat fukki ak ñaar mu di ci liggéey liggéey boo xam ne ràññiku na ñëpp teg ci seen bët mu di ko def ci sëñ Saliou ba nëgë ni ba ñu àndaat ñëw taxaw ci kanam mun taxa indil ko liggéey boobu muy lu rafet na xam ci njabootu Sëñ Tuubaa la bokk bu toogoo nit wax dëgg yàlla di soññee fii ci këram rek wala bu màggal jote wala bu ay xew jotee it daanaka mënuy wax ne mu doy waaye teewut moom da cee yor taxawaayu taalibe xam ngeen ne bitim réew neexut waaye ma nga fay dem di wër di soññi mbokki taalibe yi fa nekk loolu it day loo xam ne dañ ko ci gërëm baax a baax ndax ràññu ko na ñu gërëmit it suñu mbokk yi des nga xam ne ñoo fi représenté ay daayira yu jóge ca nekk ci diaspora bi naa ci ñoom sëñ Modou Diané mi ak ñooñu ñëpp Massamba Dieng moo fi représenté sëñ Modou Diané ci Italie am na yenn daayira yoo xam ne ñoo mbay ndaw ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm di lu taxawaay bi tax ci jaar ci ñoom it sant gërëm mbokk taaliba yi xam ne ñoom lañ nekkal tey ñooñu ñoom ñuy représenté fi loolu lépp it day lu am solo lool ndax ni ko waxee ndox mi day lu am solo ci dundu nit soxna si wax na ko boo xëyee ba ngay tëdd lépp ngay def rek ci ndox nga koy def donc loolu day lu am solo te tuubaay it di dëkk bu mag a mag a mag a mag koo xam ne naan mat na deux million ñaan naan un million cinq cent ci population bi euh, bu màggal gi ñëwee nag juróomi fan ba juróom-benn yoo xam ne daanaka ay bis la fi dajaloo daanaka dana mat quatre millions jëm cinq xam ngeen ne loolu yëpp li ñu soxla ci ndox day bari lool lool lool lool xam nga moo tax gis ngeen forage yi li mu toll lii gouvernement bi moo ko tabax lii ay mbokki taalibe ñoo ko tabax yi ay sëriñ ñoo ko defar te loolu moo tax ñu xam ne dafay lu aajo ñëpp taxaw ci toujours rek ñu gën a yokk capacité forage yu fi nekk ba ndox mi mën a dem ba ci quartier yëpp te gis ngeen Touba ni mu yokkoo ci quartier yi moo tax it buñ sañoon fu nit ñi yegg rek ndox mi yegg fi te doon loo xam liggéey la bu rëy rëy kon nag kuy taalibe rek war nga cee taxaw ba lu fi war a am ndox mi mu am fi bañ koo xaar rek ci gouvernement bi wala dara mais buñ defee ñoom it taalibe yi def ñoom lañu man ak kilifa yi jiitu ci ñoom it jàpp nañ ne danañ fexe ba jafe-jafe yu bari dana di bu jeexu ci saa sayit dana di wàññiku moo tax nag ñu sëñ Saliou ba mu fi sosee na yàlla yokk leeram maa bu rax ma joxoon ko sëñ Cheikh Aliou ba nëgë ni muy dox xalifa yi fi jaar yëpp wutu ko ku ñëw rek bee salaat ndigal loolu pour ñu gën a liggéey ñëpp ànd ci di ko di di ko di ko di ko def kon nag taxawaay la boo xam ne day wéy ba faw rek lu ci nit jàpp rek luñ ci jàpp nu ñëpp rek mu gën a yaatu pour ñu gën ko fexe ba ndox mi dana baaw naan ba yegg ci dëkk bi yëpp yëpp yëpp loolu nag daa aajo kenn ku ne dugal ci loxoom kenn ku ne bañ a xeeb ka tàmbalee ci ka mën a defar ab forage ka mën a maye ab machine ka mën a maye ay tuyau ka mën a joxe ci poosam génne lu man rek ba ki nga xam sax dooleem ñaar fukk la tollool it bu ko joxee baax na loolu lépp buñ ko boolee rek mooy li nga xam ne mooy li ñuy dugal ci ndox mi yokk tuyau yi sëñ Muntaxa léeg-léeg bu ma demee gis ko day wax rek nañ yaatal rek yaatal ndox mi rek yaatal yaatal ndox mi rek yaatal moom mooy mu gën a mu gën a mu gën a dem mu gën a yaatu ci dëkk bi rek gën a yaatu dëkk bi loolu nag yaatal moom day nekk mën naa nekk forage yu ñu yokk mën naa mën naa nekk ay bu ab forage amee ba pare ñu am ay am ay tuyau gas quartier yokk ko ndox mi ci quartier yi loolu moo tax liggéey boobu day liggéey bu bu bu bu am solo ñëpp jàpp ci ndax dañ leen di gërëm gërëm yi moom waaw si kenn ku ne ni ko ci waxee sa bopp nga liggéeyal te liggéey bi sëñ Tuubaa waaye sa bopp nga liggéeyal ak ku ci liggéey sëñ Tuubaa dana la fay yàlla dana la fay waaye teewut it lu ñuy wax waa góor dana tax nit gën a góorgóorlu ni ci rawatina kilifa yi ñu ngi ci yi nga xam ñoo ci nekk nekk ci jiite kuréeli jaayante yi tudd nañ fi soxna astum sëñ sëñ sëñ Abdou Borom Dër bi sëñ Modou Bousso Seck mi représenté ko ñoom soxna gàddu Bousso ak kilifa yeneen yoo xam ci njabootu Sëriñ Tuubaa lañ bokk ñoom taxaw ci taxaw yu wóor di ca sonn ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant kon nag ñoom kon ñoo wane loolu rawat na ñun taalibe yi nga xam ne ñun ñoom suñu laxasaay fuñ toll rek dañ koo war fet li di góor góorgóorlu ci liggéey bi loolu daal ñu ngi leen ci koy ñu ngi gërëm kilifa yooyu di gërëm suñu mbokk taalibe yi di leen soññ nag te nun luñ góorgóorlu woon rek nañ ko gën a góorgóorlu ci liggéey sëñ Tuubaa bii sëñ Muntaxaa yor ko muy ndox mi nga xam ñun fi leen féete ñun ndaxte liggéey yaatu na université baa ngi fi liggéey yaatu na waaye ñun bii nga xam ne moom dogal na mooy affaire ndox mi te ñun ñu féete ci nañ ci góorgóorlu ba nga xam ne danañ ci am ndam lu rëy rëy loo xam ne mooy ndam nag mooy fexe ba rek bis bu set mu gën a yokk mu gën a yokk mooy forage yi gën a bari tuyaux yi gën a dem ba ci quartier yi ak leneen ba ñu ak nit ñi ba lu mel ne yàq bi it ko loolu mooy lu mel ne tiwo yi nga xam ne léegi ab tiwo toj ci mbedd ku ko gisit sëñ daam ñu ngi koy wax léegi ci délégué de quartier yi sëñ sëñ bu ko defee loolu it ñu dimbaliñ ci ba koo gis rek nga signalé ko délégué de quartier yi ak chef de village yi foofu lañ leen bëgg di gën ni am buñ soññee nit ñi sax ci jaayante bi waaye it ñu duñu xoolal ci tiwo yi ne ci quartier bi nga xam ne bu bu bu bu tojee rek ñu gaaw signalé ko yewal fa ay plombier ñu defar ko ba xam ne loolu du yàq mbedd ma du yàq kër yam sësal loolu lépp day bokk ci liggéey bi ci daanaka ci gàttal daal soxna si ak say Abdou Khadre ak mbokk taalibe yi fi nekk lu mel nii xëy na laa ci bëggoon na yokk rek ndax tey li wax ji ma jiitu yëpp ay wax ju rafet la wax ju sell la bëggoon naa nag bala ma terminer rek xëy na ma wan ne ñi fi daayira yi nga xam ne versé nañ fi xëy na ma wax lim yi ñu versé nit ñi dégg ko

daayira Safatul Musaafir bu Touba Babaroma ñoom verse nañ trois cent soixante quinze francs am na nag aussi ñu verse ñoo xam ne mooy bu sëñ ma Samba Dieng moom verse moo nañ quatre millions lay verse sëñ Samba fi représenté am na nag aussi ñu fi nekk yoo xam ne ñu yoo xam ne dafa tay tekki bi mais ñoom yaakaar naa ne ci dañ ko versé rek mais du diaspora bi famille sëñ Ibrahima Sarr bu teenu aynu versé nañ ñoom it quatre cent mille francs am na ku wax Serigne sa Bousso Samb versé nañ un cent un million cent quatre-vingt-quatre mille six vingt-cinq mille francs yooyu xëy na sax yii lañ ko tegoon ndax am na ay yoo xam ne xëy na yëg seegul sëñ Cheikh Abdou Latif wax na ma ne am na kii yu yor ay récits yu yor xam naa xat-xataay bi moo tax joxaguma ko waaye waxoon si wax na ma ko lu mat ay ne fan yi mi ngi ak moom te ma ko jox xam yooyu bu ma ko joxee it dinaa jël yokk ko ci kii bi yokk ko ci liste bi nga xam ne mooy ñi versé ay ni raxmati alhamdulillahi jasili ni'mati la ma hiya ay ni raxmati